n'est pas dans la provocation ak bi ñu gis fan yi euh, militaire ci mbedd mi le président Macky Sall génne benn décret ne aj na retraite militaire yi le Sénégal est-ce que soxla na loolu est-ce que tamit loolu du xuppaate bu ngeen nekkee non non xam nga ordre public loolu moo xew ordre public administration moo charge moo am charge bu préserver l'ordre public bu fekkee ordre public dañ ko menacé bu fekkee dañ ko troublé mhm. mu rétablir ko bu fekkee dañ ko menacé mu jot ay jumtukaay pour ñu ko loolu mooy ordre public ordre public mooy première mission première mission bu administration bu correct bu am. Mhm. ay nit duñ wax li ñu wax moomu daanaa nekkoo ci réew mi. ay nit yu nekk wax wax li ñu wax danañ taal fii danañ dugg fii danañ dugg fële nga ne état bu responsable du jël ay motukaayam ay nit ndajaloo parce que attroupement dafa am charte dafa am ay règle yoo xam ne mooy régler attroupement ay nit organise librement benn attroupement mais état bu responsable dafay jël ay jumtukaayam taxaw. loolu rek moo fi nekk amul benn volonté de réprimer amul benn volonté de répression amul benn volonté xubtal c'est que état waruñ ko bett état bi nag dafa war jël ay disposition loolu par loolu je ne crois pas mhm. Mamadou benn nit bu sérieux mën a remettre en cause ah. disposition yooyu au contraire dafay wane ni que nous sommes dans un état d'accord tension bi am na Ziguinchor tey jii euh, est-ce que aussi euh, ñu bëri li ñuy ragal mooy Euh, mu xewoon beneen dëkk xëy na moo doon moins grave parce que Ziguinchor dafa am benn passé boo xam ne encore euh, récent dans les esprits mu doonoon dëkk boo xam ne dafa yàgg souffrir dafa yàgg am ay métit xeex bi armée bi ko gars yi déposé yàggul ñu ngi koy annoncé sax bërki démb ak euh, loo xam ne ñu bëri ñu ko rafetlu mais li fa xew tey jii nii actuellement nii nii est-ce que tamit du xaw a indiwaat tuuti jafe-jafe ci localité boobu mais mais mais xam nga première chose bi am mooy ñu convoqué la procès hmm. am nga jël date boobu jour boobu nga convoqué ci wax Mamadou Awa doo ci commenter loolu ñu convoqué la justice nga war a dem appel ñu nga convoqué conseil municipal même jour. boobu c'est moins parce que mënoon na bañ a dem. loolu mais loolu c'était une façon aussi de défier. nga toogaat aller retour la doon def Thiès Ziguinchor Dakar man mi comme man maire laa ci Kaffrine danaa dem vendredi samedi maa ngi woon foofu. Mhm. tey maa ngi fi ci sama liggéey. moom noonu la doon def bu ñëwee moom ci boppam nga xam sa procès nga dem toogi foofu mais la kuliyalin

ku ci nekk xam nga acte yu opposé ku ci nekk xam nga naka nga organisé wu. Mhm. vous savez loolu laa wax ni amul kenn ku am droit di réveiller traumatisme boobu en Casamance kenn amul droit boobu parce que ce que la Casamance a vécu la Casamance l'a vécu dans chair et dans ses mhm. mais aussi le Sénégal l'a vécu. et donc forcément képp ku bëgg a jàmm def éviter tout ce qui est tension ma pas seulement à Ziguinchor mais dans tout le pays personne n'a y gagné mais est-ce que ça en que nañ gaaw ñu dem procès bu ñu am ne soit ñu def ñu demee ci procès mu leer ma ne Ousmane am na une occasion unique de montrer d' abord qu'il est totalement innocent et ça ce sera sa grandeur. Mm -hmm. et deuxième argument parce qu'ils ont toujours dit que dafa am complot d' état. ci affaire que nañ ko prouver devant le tribunal c' de le prouver en tout cas moi su demoon ñu wane ne que état bi est responsable de ça responsable de ce qui s' est mais tout le monde va en les conséquences.

souhaitons mm -hmm. ait cette grandeur et cette posture. de venir répondre à la ah, justice. c'est ça que je souhaite. Mhm. parce que man, de toute façon man je suis un homme curieux je un citoyen. Mhm. simple Mamadou comme toi qui est curieux de voir tout ça où est-ce que ça se termine. qui a raison qui n'a pas raison. mais s'il y a des choses qui se sont passées. ay absolument cest dire que